jukkoom moo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek. sallallahu alayhi wa ndax li ñu laaj. Hmm. sayyidatuna Aïcha kan mooy yonent bi ak lu doon jukkoom. Hmm. mu ne kaana xuluquhul Qur'an. sëñ Tuubaa it noonu rek. waaye melokaan wa melokaan wa. Hmm. ab kaamil la daa teg ci bopp bi. moom sëriñ bi waaw kaalaw. soccum ngóot la daa soccoo. garabu ngóot xob yi day sew te nekk ci bi. waaye sëriñ bi soo dee xool mbiram. dangay nga yéemu. ndax moom ci boppam mas naa toggal ab laax boppam. suukar ko woo ay gone jox leen ko. gone yi lekk ba nopp mu ne ma sunu borom damaa xamal ne. ku la liggéeyal mucc ma bëgg a liggéeyal saa bopp ci sama bopp. kam Sëriñ Tuubaa sëriñ Mamadou Lamine Diop Dagana uh-huh. mas na ko fekk muy naan am njàppitam moom sëriñ bi moom sëriñ bi di ci barkeelu uh-huh. dalli karbat nag la daa sol ci di sol neppe noor uh-huh. karbat dénk lañ koy defere neppe der yu dagan daana sol xaftaan yu weex am na ñu ne daana sol dara am na ñu ne daana solit lu dul lu weex léeg-léeg daawul geesu nag sëriñ bi ak lu mën a yëngu ci ginnaawam du geesu la ilaha illallah du toog mukk te jubluwul xibla ndax xam nga toog jublu xibla mm-hmm. ci jaamu yàlla la bokk ndax da ngay mel ne koy sarxe daawul wax tubaab ci dara ci daawul laal dara te waxul bismillah daana toog tooginu cëpp ci kaw tànk yi waaye toog ne faraañ baa tàllal say tànk mhm. du ko def bu dee bind ci lépp ci li mu daan bind rek guddi lay doon daana wax ak lu bari bu déggee lu ko neex wala mu gis ko mhm. sëriñ bi daana jëfandikoo xaal xaal waaw ak kafe mhm. ak ataaya ak laax ak baraay Eh. bu daa ree day muuñ Sëñ Tuubaa daana wax ndaxam lu bari at di laajte ba noppi door a wax ci daan dénkaane nag dénkaane yoo xam ne boo ko déggee mm-hmm. dootu ko fàttee ci mukk moom nga dégg sëñ Moussa Ka di wax naan sax mm-hmm. da daan muuru di yor ñetti kaala yi joor rawaan yaa ko daan féete wala nday joor su muuraay gën a lertat sikkim ba ni laas de saflaari wurus moo ko jekk ay faas te leerug yaramam tax ne cër ya xeereer mhm. da daa jolli ci bàttin di sàkk ceeñeer mhm. da koy misaal te léeg-léeg mu ne jël bindi jaani ñangoor mhm. di soppi yaramam kaw ga mel ne mbàngoor luhu nuuru jalaalan yuri jamaalaa luhu nuuru jalaalan yuri jamaalaa melokaan wi rek lay jël ba di wax sax naan ko fitam waa gërër yi mel ni Abdou Jàmbaar amul soxla ci capitaine borom mi soldaar yow bu leen ji dikkaatoon léegi far di Eesa bu sabur ñëwaatoon léegi far di Daawuda alxuraan yaa ko yeesal ba far di Mahmoud sa mm-hmm. géeju gi tamit raw na géeju Luxmaan xasaay yi uh-huh. nga feeñal ma fu ko jeel ajaay yi nga feeñal ma fu ko jeexal koo tofle sow lor tofal ko busra mm-hmm. mu tàggoog loru duniyaa kasaa ko oxraa